yow mi nekk Sénégal wala nga nekk Afrique te bëgg seetaan galaa bu mag bi war a am le 27 février Fallou Ndiaye organisé ko mu war a dox ci diggante Ada Fass Jokkel Laurent Ndiago bu Siteu Bulldozer Caatu Yaraax ak yeneen juróom-ñaari combat yu war a am ca bés ba mën ngaa jënd sa code ak sa Orange Money da ngay def dièse 144 dièse 5 étoile 346 360 étoile 1800 dièse nga daal di bés touche appel daal di dugal nag sa code secret di nga jot benn SMS bu la yónnee sa code lay yëgal ni code bi Sénégal dong la ak Afrique bu fekkee da nga nekk ci yeneeni réew yu bokkul ci biir Afrique maanaam ci Europe bi ak li ko wër yow carte bancaire rek nga mën a utiliser wala PayPal da def 3w point seen affiche point com nga daal di bës achat ou connexion par nga daal di topp nag tegtal ñu lay wan. mbokk yi seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ngi fii ci Pikine kër gi ñu nekk nag fii la Ama Baldé di yeewoo muy sël bu ndaw bi nga xamante ni moo waroon laale ak Modou Lo bi ñu yëgee ni Ama Baldé adversaire am bii di Modou Lo blessé moo waral ñu ñëw tey ngir seet si staffu Ama Baldé seet ay kilifa Ama Baldé ba ci moom mbër mi bu ñu mënee am réaction li xew nan la ko gisee nan la ko waa pikin gisee waaye ba léegi mënuñoo gis Ama Baldé ñenn ci staff bi woo nañ leen bëgg a waxtaan ak ñoom waaye ba léegi dañu koo gàntal parce que dañu ne réunion wu amul lenn loo xamante ne mun nañ ko cee wax waaye supporters yi am na ci ñoo xamante ne gis nañ leen ci buntu kër gi niñ leen gisee mooy am nañ mbetteel am nañ naqar am nañ njàqare ndax komba bi nga xamante ne ñoom ñu ngi ko doon xaar dajale seen xaalis pour jënd billet dañuy dugg ci biir xoolal leen supporters yi nan la ñuy wax ak ñi nga xamante ne ñoo sa ci Ama Baldé su ko defee ñu dégtal leen ko mbokki internet yi kaay sëñ Basiru Abdou maa ngi lay nuyu baax di la si maa ngi lay fay jëwri maa ngi sant borom baax a ma ñëw fekk la fii xam Abdou xam ko ci Pikine ku ko xam-xam diggantam ak Ama Baldé bi ngeen yégee Modou Lo blessure bi ban gis-gis nga ci am ak ban yëg-yëg nga ci am waaw bañ ko yëgee moom am lu ñu metti trop ndax pare combat lu ëpp deux ans ba ñu ne des na dix-sept jours pour nga bëre hmm. nga ñëw sa ñu ne la fa blessé neexul ci xol dafa metti metti na trop amul ci ku mu neex nag ñun waa Pikine yëpp tey ñun yépp dañu bàyyi suñu yit yépp ñëw fii waaw ñun ñëpp ñëw ci ama defal ko xam na tey xëy na ni la ko suñu borom la mee waaw dañuy ànd seeg moom nii rek Ama bi nga ñëwee gis ko di ko defal ci ci ci nan ngeen ko fekkee ak nan la ko def non Ama moom amul problème xëy na métti na ko trop ndax tey lu mu daj ci combat bi combat boo xam ne deux ans fi nga waroon dugub fi nga waroon dem dama too fa xoolal lu mel ni màggal Touba ama combat bee tax tëbëg si ama tëbëg siwul lépp ndax combat bi ndax benn fan ñu dem ba mel ne des na 17 jours mu yàqu neexul ci xol métti na trop mais nag nangu ndogal rek mm. waaw nangu jël Pape Sarr léegi mu wax nii yàgg na ko wax ñi yónni na Pokola yónni na ñenn ci ñi nga xamante ne jege nañ Ama Balde ndax gisul am Ama Balde ne leen wax leen Ama Balde mu wàññi ay saraxam wàññi li mu war a génne ndax combat bi du am la treize loolu yëgoon nga ko. non loolu tey maa ngi koy soog a dëgg yëg maa ngi soog a dëgg loolu tey loolu moom waaw. ab Sarr nee na bi mu ko waxee ñu bari gëmuñu ko woon mais moom xamoon na ni Modou loo dafa blessé Modou loo yoonam bi mu dem France demul woon pour entraîner ji mais dafa demoon pour faju ji. waaw Pape Sarr lu mu la rek am na. ndax doomu pikin la doomu Pikine la lu mu lépp lu mu ci mënta wax rek nañ jàpp ne li Pape wax kon am na mais Modou moom xamal nit moom boo demee ba blessé wala lenn wala ba ngay dem di faj da nga koy teel a déclaré nit ñi ñu teel a xam waaw ñu bañ mais tey dem ba wal fajari bu demee bay def ay pip pour seen jàkkaar jàkkaarloo samedi tey ñu ne leen combat bi yàqu na. metti na de. lan nga wax promoteur bi nga xamante ne moo joxoon mbëri ñaari mbëri xaalis ba tey fi mu toll nii ak problème yi am ci làmb. non promoteur du ma ko wax dara ndax xëy na moom dafa taxawal bis pour ñu bëre. Hmm. ndax yàgg yàgg yàgg incha allah dinañ bëre. Hmm. tey bu doon seen sagom suba suba ama bëre ak hmm. Papa Sow. mais eh, ak ah, Modou Lo. tey ama mu fi Modou Lo leen dafa blessé nañ jàpp ne dafa blessé rek. lan ah du ma ko wax dara di ko ñaanal rek. ak famem ak kii ba yàlla def affaire bi amaat daal combat bi amaat incha allah. bi njort nga ni dina am ci année yaakaar naa ko de yaakaar naa ko dina am allah daal. Hmm. mais dinañ bëre incha allah. Hmm. waaw affaire yi nga jàpp ni loxo amu ci du mystique wala yu mel non bu affaire mystique ndax tey Modou moo doon bu njëkk li ma sëriñ wax rek ma def ko hmm. koy def tey mënoon na am ngor même tey bu blessé. mu ñëw bañ a yàq journée jàmbur blessé. ak blessure. barki dem ba guy yi waxu fi la fa ñëw bañ a yàq journée jàmbur blessé keneen ak keneen ñëw yaay dëgg mbëri naan dama ñëw dama blessé mais dama blessé ak blessé. est-ce que yéen bëgg ngeen a bëreeg Modou Lo bu blessé Modou Lo boo xam ne aptul. mais xëy na nit ku parewul dem ba jour làmb ji wala bañ la desandi ce jour ngay ñëw taxaw naan dama blessé tey ñun ñëpp waa Pikine nag fépp feneen ak feneen ñoo ngi doon pare làmb ji ñëpp. amul ku ci parewul làmb ji billaahi tey waay ñi non xama rek mais yàlla baax na jëye grand yegg sil yegg sil làmb mais bu gore woon laa la wax day sëgg bëreeg booy bi booy dafa xam ne ama yee bi moo koy déranger te bu ñëwee Pikine xool du laal dara bu ñëwee Pikine la ama yee moo koy déranger ama yee kase gisoo ñoo fa teg jeexal amul leneen saa bu dikkoon bala da ko juutal nga ni koy tëddee bëre woon dañ koy tëddee mu jeex mais ñemewul. nga ne lan sa nga ne kat nee na. man damaa am lu metti quoi. ndax Modou Lo mënul bàyyi ba combat bi des deux semaines mu ne dafa gaañu quoi. mais est-ce que du dafa blessé dafa gaañu. loo bi ngeen doon wax. Ah, tey moom mooy xarañ bi moom mooy roi des arènes. Modou mu dalee bëre ba léegi di jàpp di daan muy neex. tey moo dajale pël bi muy ragal. ragal nga ko gisee. man. dama ragal Ama Baldé dañu naan dañuy benn moom Ama dañuy benn ñun Ama man Ama maa ma fuuf man Ama maa laa maasal dama Baldé laa maasal. Ama du mbër boo xamante ne day ne day da nga koy jox avance bi delloo ko Ama avance boo ko jox da koy jël. mais Modou Lo dafa am lu lu lu mu lu mu waxoon. ay bu ñu tëjee barrière rek ay yéeg yi ak yaay wax moom bi gaañoon sa moom loxo bi daxoon sa waroon bëre. waaw épaule bi gaañu na man de leer na ma yàlla bu Ama Baldé gaañoon day bëre. waaw. te yéen waa di ngeen bàyyi Ama Baldé mu gaañu dem di bëri. waaw yow Ama na Papa moo gën a métti te daa bëri daan. moo ah, Papa lu ci xew. dafa gaañu woon te taxul dafa daan Papa Sow. xamoon ngeen ne dafa gaañ. waaye loolu sa am na yoo xam ne am na ko bàyyi man da ko yàq boo ko yàqee am na nga yàq imagine ñu nekk ay diaspora nekk ay Italie ak France ba dama xam làmb jooju noonu nga ñëw benn jour rek nga ne damaa gaañu Papa yi lu ñu ko taxaw ne Modou Lo ay dafa am facture lii ak laa ak lii lamb ji xam la mën a mën a dul neex léegi da ngay tëggal mbër sa nga faral ko te moo ne bu yaakaaree moom emballé mooy wërsëg emballé day xaar en ah, barke alxuraan kay day am xaaj lamb fa la force loolu yàlla moo ko wax force mais bu moo loolu moo koy non nekk moo loolu man sax ma sa wax ay wax moo loolu mu kuraar mu kuraar mu kuraar mu kuraar kuraar kuraar kuraar non non da laa dara a ci lamb yaa ngi naan champion la du nga ko du nga wax lu nekk paa yi ko tëgg naan turam bi da koo dem ci lamb ji affaire yooyu noonu mais amul chance parce que yàlla daw lamb ji maa koy yóbbante nag yóbbante naa ko fii ak 10 ans bu ñu xaatee mooy loolu. fii ak ans parce que yàlla fi laa koy fii ans fii ak 10 ans bu ñëwee day tëdd. moom amul am da koy yiti da koy ñamal mu def rafetul ñaaw la. Balla Gaye daanu na fi ñaari yoon yoo xaye ba mu daanoo ba pare la soog a wax li ko dal yaa ngi dégg guy gi ñuy daanu barki démb bi mu daanoo ba pare la ñu soog a wax li ko dal lii mu wax waxul dëgg du dara mën loo daa ragal Ama Baldé da ko ragal carrément combat bi na saa bu yàqoo moo ko yàq saa bu moo ko yàq ànd ak ñu ko àndal nag di ko yàq rek waaye kenn du ko ko baal dafa ragal amul jom mu loolu dara. yaay barki sëñ ma la moor ma moor am lu ñu metti barki maam Bamba moo am mënoo lii xaaruñu ko woon si moom moom day toog ne moom mooy xarañ loo xarañ loo lan mooy xarañ loo naan la bu toogee bu ñu tëjee yi yooyu noonu bu ñu tëjee yi chaque jour wax barrières yi ay trois semaines des ngay xaar barrières doo ñëw nga ñu tëj barrières yi yow bëggoon ngeen ngeen tëj barrière barki laa la wax lamb ji non Ama Balde dafa pare fépp Modou dafa xam mbër fu mu dem ñu ne ko dafa jeeku yii yëpp ay stratégie la rek da ko tegoon bu yàgg lii Modou Lo yàgg na ko def Modou Lo yàgg na yàq làmb moo ëmb seen defoon na ko Lo lii xam nañ ko si moom du benn yoon du ñaari yoon mu Lo lii la war a bàyyi. barki am bu waxee bëreetul ak Ama Balde ni keneen mais moom moo la gën a xam tôt ou tard dañuy tase. tôt ou tard laa la wax dañuy tase. Modou dafa Ama dafa ñëw ku daan daw Malick Niang Ama ay combat jànk rek la bëre ñu ñu fi daw si lamb ji rek la bëreel Malick Niang fi la toog ay at bëree ñëpp di koy daw kenn mënu bëre moom Ama ñëw bëre moom Tapha Tine la même chose kon Ama dafa am dafa prouvé ba toll fii mu toll Ama kon ñu tëbul la bëre Modou Lo dafa prouvé ñuy toog naan Ama Modou Lo ko may affaire yi lépp sens Ama dafa prouvé. mais tôt tard laa la wax même bu jëlul làmb ji même buñ ko bàyyee ñun force roi bi dañ koy indi Pikine par force dafa leer fii ak ans roi bi Pikine dafay dugg par force na kenn mënu si dara bàyyi ci sëñ Bamba mënoo kanaara la. naka la nice jëlee lépp jàmm nice sant yàlla bu baax bi nga xamante ne yëpp ngeen. Ah. tamit xam nga préparer ay at. xam nga ñëw ba mu des ay 17 jours 18 jours ñu lay wax ay nouvelles yoo xam ni neexul si làmb quoi si mbër moo xam ni da nga dem ay France ne dem daj lu métti ànd ak say mbokk ak say morom xam nga di daj lu métti pour am ndam quoi ñëw toog euh, ba tey ñu ne la ay làmb ji amatul parce que sa adversaire dafa gaañu neexul quoi. léegi lan ngeen wax bi nga xamante ne dafa blessé muy Modou. man sax. mooy loolu Modou Lo moom du ma wax moom sax di ko may bës. am des arènes am na. am na lu may wax si moom. parce que am na yoo xam ne naay suñ ko nit du soxor. barke sëñ Fallou nit du soxor soxor baaxul. Ama Baldé li mu war am li yàlla bind si jëwam balaa muy dee da koy jot. roi de arènes loolu par force la Modou bu mun bu demee ba mënatul na jël couronne bi mu teg ko feneen ñu dem jëli ko moo gën. mais am na yoo xam ne naaysul Modou Lo moo la gën a xam li ko fekk si làmb ji daa parewul noonu la demee mais am na yoo xam ne naaysul quoi nit du soxor barki sëñ Fallou naru ma woon wax si moom sax mais yow sama waay nga noonu la demee nag non mais naru ma woon wax si moom parce que man ku soxor aw lu may wax si moom yéen ñii soxor la quoi. blessure est-ce soxor am na ci Modou mi jël avance Ama Baldé xanaa bu sañoon dina bëre ak Ama Baldé arène nationale. waaw bëre que gaañuwul ko. dafa ma la wax su bëggoon bëre suba suba day bëre parce que am na yenn yoo yow yow koo ñemee yow signature signature si làmb làmb ba mu dalee ba mu sosoo ba tey signature ñu naan la ay làmb ay signature cinq personnes loolu Modou rek moo ko fi def Modou Lo xoolal mbër yi mu bëreel yëpp seen signature ay public lañ koy def mais koo ñemewul jaakaar loolu si signature nooy tëjoog moom si géew ñemewul barke sëñ Fallou ñemewul. ñemewul Modou Lo bu demee ba naan ay signature ay nañ ko def fi ay cinq personnes dix personnes loolu moom rek moo ko fi def si mbër noonu la demee ñemewul. <coughs> Gane loo wax. ñun daal ama ama Baldé boo waroon ama kii Modou Lo daal moo waroon bëre ama. Ah, ruux. waaw Moulay bu taxaw bu taxawoon ne kii mën naa daan kii waaw du du du kon da koy mën di def loolu ñoom du ñu am problème boobu waaw moom waaye Ama Baldé moom dafa war a Ama Baldé am na am na boppam war na war na mën a daan Modou Lô quoi. yow mi nekk Sénégal wala nga nekk Afrique te bëgg seetaan galaa bu mag bi war a am le 27 février Fallou Ndiaye organisé ko mu war dox ci diggante Ada Fass Jokkel Laurent Ndiago bu Siteu Bulldozer Caatu Yaraax ak yeneen juróom-ñaari combat yu war a am ca bés ba mën ngaa jënd sa code ak sa Orange Money da ngay def dièse 144 dièse 5 étoile 346 360 étoile 1800 dièse nga daal di bés touche appel daal di dugal nag sa code secret di nga jot benn SMS bu la yónnee sa code yëgal ni code bi Sénégal dong la yem ak Afrique bu fekkee da nga nekk ci yeneeni réew yu bokkul ci biir Afrique maanaam ci Europe bi ak li ko wër yow carte bancaire rek nga mën a utiliser wala PayPal da ngay def 3W point seen affiche point comme nga daal di bës achat ou connexion par carte bancaire nga daal di topp nag tegtal yi ñu lay wan